bés ginnaaw bi marché central Ourossogui lakkee ba léegi xamaguñu li ko waral ay jalu mbalit nga fay fekk wala ñeneen ñi nga xamante ni ñoo ci loru woon di taqale rek ngir taxawal leneen mu nekk li leen metti ñi si sama place ñaar place moo lakk million million kew bu bare moom moo lakk fi moo ta damay toog rek ma jaaxal bari man kay ma bàyyi ma bàyyi sa loxo sa yàlla rek muy dimbali si nit yi rek sinon fii kay man kay gisuma dara foofu. amul benn ndimbal gi waaw xaalis du dimbal ay su joxol xaalis yi nit yi ñëw taxawal bale si place yëpp moom dimbal ay su joxoo xaalis yëpp dimbal la. mais deful ko ñi ñi sama place bi ñi génne yëpp ci biti tey kabri subaxa ba tim ba trois heures dogaloo ba après ma dem sama cantine ma yóbbu fo ginnaaw bi soudeur bi. suudee ko après ma ñëw ma teg fa sama sama sama gars yi ma jàppal ma pour def simon ji loolu la rek loolu la loolu la métti man de man kay maa jaaxal wërësoo gi. ci ma dëgg jaam rek métti na trop métti na li fi yàqu moom dina naqaree xayma ndax yàlla dogal amoon naa fi ñaari cantine benn bi dépôt la benn bi moo doon fonctionné benn bi dencukaay ba ma yàlla dogal yëpp a lakk waaye na xaalis bi xaw na takku bu ñu estimé ko nii nii nii dana xaw a compliqué waaye xaw na të. waaw alimentation général lañ doon jaay alimentation am ñenn ci ñi fa doon yëngu di ñaawlu rek ñàkk taxaw bi ñu leen ñàkk taxaw am ñeneen ñu weddi li ni mel. marché bi dafa lakk mairie mu ñëw oto yi da jàppal kenn ñëwul jàppal ñi ñëw gourmet ak pel ñi bàyyi kabri démb nee day ñëw kenn lewu ñëwul ñi suñ bu koy bu koy ñëw dimbali ñi valise yëpp génne ko. mu jaaxal. préfet moom dañ koy mention spéciale jour bi ñëw na fi lendemain bi ñëw na fi maire it ñëw na fi def na visite war na xool waaye benn naqar lañ ci am lu jëm ci wàllu ordire bi depuis dimanche ba léegi mi ngi fi mu ñëw fa am ku ñu ko génneel ñoo mujj volontaire fay ay jël kat ay boy ñu fay ñu génn ñu ko ci biti loolu dañ koy déplorer rek te vraiment ndax bi fi ñëwee joxoon nañu ay promesses yoo xam ne yaakaar nañ dina ko tenir. waaye dem nañ ba ci biir xëy na meeting bi yóbbu na ba tax daal ñoo mujj jël suñu engagement suñu bopp fay ay nit ko génn ñu jot ko ci biti quoi loolu daal lañ ciy déploré mooy moo ñu ci xaw a nekk. ci promesse yi ndàmpaay am na ci. moom ndàmpaay am na ci moom macha allah waaye vraiment ndax monsieur le président dañ koy félicité génn na de vingt millions pour dimbale ko sinistre yi kooku moom dañ ko ci félicité bu baax vraiment. préfet ñëw na fi juru lakk bi si guddi gi en même temps ci suba bi ñëwaat na fi maire ñëw na fi après. waaw après nag wax dëgg yàlla am lu doonoon sunu sunu bëgg-bëgg mooy maire taxawuñu bu baax a baax te xam ne ay ay soutien de famille lan te wax dëgg yàlla am depuis dimanche ba léegi nga toog presque liggéey sa liggéey demewul noonu xaw na métti lool fu mu toll nii presque ñii ñooy fay ñuy génne mbalit bi depuis dimanche ba léegi waaw dëgg yàlla métti na lool. ñu koy sàkku nag mu ñëw mu gën ñoo dimbale nag gën ñoo taxaw waaw dëgg la nag peut-être bi xañ na tome nag peut-être que campagne nag il faut ñu ñëw dimbale ñu baax a baax ñun suñuy xel mën a dal. mooy am na ñoo xam ne nii ñoom fanaan wuñ dépasse dañuy jaay rek joxe dépasse kooku boo na ko xaaral wala dañ seet yaa ngi koy gaañ xaaj bi ñu pasar pasaree di ko sànni ci campagne bi bu dee nañ ko teg ci nit ñi. marché marché bi lakk na dèjà semence moo am fii am na koo xam ne yàlla xam ne day xëy joxe dépasse bu place am lakkee moom mënu laa xaar kon li nga ko jox da nga ciy jox ko te fu nga nga teg mu leer boo ko fay jëlee mu xam boo koy boo ko fay bàyyi xam mais nga koy téye 2 mois 3 mois topp campagne yi ay bor ci fekk kon jàppale woo ko. mais nag vraiment lii dafa bokk sax ci campagne parce que lii vraiment ko nit bu yàqulee nga ñëw taxawu ko soutenir ko moom it euh, mën na am. mën na mën na mën na lu lu ko metti woon mën na mën na mën na koo waaw mën na giif daal. ginnaaw làkk bi ñenn ñi ji joxoon baaram tuuma rek li nga xamante ne moo di désordre ci biir marché bii ah fii nag yàgg nañ fi ñu ngi fi liggéeyee ah yaakaar naa marché bii du tey sax la lakk lakkoon na fi pendant quatre mois bi mu lakkee y a deux places trois places foofu la xawoon na yem débordé mais bu ñu dawaatee quatre mois marché bi lakkaat man jàpp naa ne sax xel day teey soit ñàkk sécurité soit liggéey bu bon ndax mun mënuñoo ab marché mënut a tàkk ñu defar ko pareeguñ ñu ne tàkkaat na mën na nekk seytaane mën nekk ni ko soxor mën nekk leneen waaye lépp si ñàkk sécurité laa koy teg. déjà ah man moom wax dëgg yàlla am gisuma ci désordre ndaxte kenn ku nekk boo xëyee bu ñu xëyee même sa même sa kër sax même sa kër sax munoo fa ñàkk am désordre waaw xam lan mooy lan moo am solo nga yaatal sa xol loolu moo am solo mais désordre moom. même sa kër sax noo ko fi ñàkk surtout nag nga xëy nga ñëw marché waaw. marché bu bu évident lañ bëggoon marché boo xam ne bu ñu wàccee ci heure ku fiy dugg war nga ñu la wax looy wut ak lu sa soxla te man ci côté ci côté gardien yi man jàpp naa ne gardien yi bu ñu fi nekkee bu benn place commencé lakk dañoo war a war a woo seen collègue muy taal bi nga xam ne mooy seen patron na ko carte téléphone ah marché bi kat mi ngi lakk taal daal dina carte sapeur. ñu gaaw di seen liggéey bu fekkee côté sàcc ñu ne kar taal na ko jàpp nañ sàcc mu téléphoné gendarmerie mu ñëw man jàpp naa loolu la la public marché di doxee ndax nit ki boo ko jëlee ay say employé da nga leen war a éduquer na leen kat nii ngeen war a doxee ci marché lu leen jaaxal woo mais boo jëlee ay ay quelques personnes ñuy lu leen war dara xew ñu jéem a góorgóorlu jéem a fay di jéem a fay ëpp leen loxo bu ñëwee ñu ne waaw gardien fu ñu nekkoon fekk yow yaa yaa seen mental marché central Ourossogui bi lakkoon dibéer bee wees soo fa demee tey jii ay jalu mbalit nga fay fekk ak ay marchandises yoo xamante ni dafa làkk ba jeex ak ñi nga xamante ni ñoo fa loru woon ànd ak njàqare ndax ñàkk xam fu wanante di mu jëg gëtam